mbokk julli ñi mbokk taaliba yi ginnaaw bi ñu sante yàlla yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu baax di leen ndokkeele mbokk julli ji yëpp ñu fas yéene dugg nag ak yéen ci naafile yi naafile weeru koor di ko ànd ak yéen bis bu set naafile yi nga xam ni ñu koy jëlee ci téereb Sëriñ Sohaybu Mbàkke bi mu tuddee xudratul xayni fii tam yi si bax di faraa'idil xayni mu téere bu am solo boo xam ne làmboo na ay njëriñ yu bëri yal yàlla fayal Sëriñ Sohaybu Sëriñ Sohaybu Mbàkke na guddi gu njëkk ci weeru koor ku ci julli fukki rakka rakka bu ne nga tari fatiha benn yoon ak ina ansalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiruun na ak lixlaas sóoratu lixlaas mooy xul huwallaahu ahad lu ci ne ñaari yoon lu ti ne nga def ko ñaari yoon yàlla dina araamal ci moom safara te bu ñaanee ajoom lu mu ñaan yàlla defal ko ko loolu moo nekkoon naa fi rek euh, tey ji yàlla na yàlla defal tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa